jërë ngeen jëf mbokk yi nuy seetaan noo ngi sant yàlla julli ci bi alayhi salaatu salaam di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa woo di nuyu képp koo xam ni kii yaa ngi ci biir Sénégal ak bitim réew muy góor ak jigéen ñu ngi leen di balu àq di leen baal di ñaan yàlla sunu boroom jamono jii ñu leen di balu àq yàlla na nu yàlla boole baal. Euh, man maa woote woon tey fii ci sama màkkaan woote bi nag woote jàmm la di nuyu kilifay diine yi di nuyu kilifay aada yi di ñaan yàlla sunu boroom li ëpp ci li tax ma woote woote bii mooy mbas mi am yàlla na ko yàlla sunu boroom génne biir àddina yàlla na ko yàlla sunu boroom génne biir senegaal yàlla bu mu dal ku mu dalagul képp ku mu dalit yàlla na la yàlla sunu boroom wéral ba delloo la ci sa sago ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuyu journaliste yi nga xam ni woo naa leen tey ñu ñëw fii fekk si ma euh, di wax ni woote bi li ko waral mooy kenn ku nekk xam na ne ku yàgg ci làmb laa def naa ci 45 ans nekk naa arbitre bëre naa Euh, nekk naa reporter ci Sud FM pendant vingt cinq ans nekk naa dix neuf RTS ba retraité fa ci jàmm lépp ma def ko ci làmb kon xam naa luy làmb làmb teral na ma jox na ma teraanga bu ne ci àddina yàlla dogal bi loolu amee nag may def at mu nekk dinaa tëgg benn combat boo xam ni bii événement lay doon bu mag euh, événement boobu nag at mu nekk dama ko doon jagleel ki nga xam ni kii mooy dama koy jagleel ki nga xam ni mooy le président Macky Sall ak su suma yeneeni xarit ak suma ay mbokk ak su may dëkkandoo mu nekkoon feet ndax daanaka bésu culture laay def di ko dundal nu def ko daaw ak daaw jéeg mu nekk lu am solo ren itam nu jàppoon ko euh, juróom-ñaari fan ci weeru août la 7 août bii nu dëgmal ci la combat boobu war na am ci arène national mu nekkoon feet bu mag boo xam ni bii depuis 4 mois maa ngi ciy liggéey man ak suma groupe muy groupe bi nga xam ni moo ëmb Ndiarndem Production li liñ ci waroon def lépp def nañu ko suñu diggante ak CNC bi ñu laajee caution 1 million yóbbu nañu caution un million jënd nañu licence mbër yi ñu war bëri bëri muy ñaar fukki litre kenn ku ci nekk yóbbu nañu sa avance euh, bi ci des sax danaa wax foofu tuuti man rek may promoteur boo xam ni su may dem di yóbbu avance damay yóbbaale reliquat CNC ne ma loolu amagu fi dellool sa reliquat waaye jaam ak pexe yàlla ak dogalam am na loo xam ni su ko diine nungoo ngor nunguwu ko am na loo xam ni su ko ngor nungoo diine nunguwu ko euh, combat la 7 août bi moo tax tey ma woo taskati xabaar yi fas ko yéenee dandal ba jëmmi jamono dandal gi nag dañu ni bala nga ni naam da fay nekk ndax lii nga xam ni mooy coronavirus nekk tey ci biir àddina bi di lëmbe senegal ñetteelu wàgg bi dikk def ravage bi mu def ñu dem ba nga xam ni kenn ku ci nekk yaa ngi jullee ak ci sa biir kër ñiy jullee ci seen biir yi néeg ñu tëj jàkk yi tëj jumaa yi wax dëgg yàlla ma war a tëgg làmb joo xam ne ji lu mu néew néew néew néew dinaa xaar vingt cinq mille personnes ñu di ma fekk arène nationale ma ne loolu daal suma yaram ak suma ngor ak suma diine ak suma dignité mayuma ma def ko ma nekkoon naa ko dandal naa ko dàq ba jëmmi jamono bu yàlla wàññee coronavirus bi incha allah ñu mën a jàppaat beneen date door ko def ndax wax dëgg yàlla benn sénégalais bu amee naqar sénégalais yëpp ko am heure bii démb maa ngi feggoo ak suma rak bu ñuy wax Pape Mayel Diop yaayam nekk ancien ministre di Aji Fambaye Fall Diop moo jëkk a nekk ministre immigré ci jamonoy président Abdou Diouf heure bii démb lañ ko doon ñaanal ñu yóbbu ko ndar barki démb bërkaati démb su ma jarbaat doomi leen a taal yàlla na yàlla xare xale boobu àjjana xele bu toll ci fanweeri ak ñaari doom la bàyyi bi muy dem sax yóbbaale na aw lot lii moo ko yóbbu ngeen xool bërki démb ki nga xam ni mooy ma buso caam di taawu premier ministre Habib Thiam corona bii moo ko yóbbu ma jàpp ni wax dëgg yàlla xëy yendu ci ay dëj di jaale wax ndi ndigaale ba trois nga dem arène nationale ca sabar yi ak tëgg ma dana xaw a diis ci man loolu moo tax ma ne euh, maa ngi ñaan yàlla sunu borom corona bi jeex may wax itam di massawu mbër yi nga xam ni ñoom laa tëgg ndax ay mbër lañ yoo xam ni su may doom lañu di massawu seen manase menacé di massawu seen njaboot ndax waaj combat dafa metti te xele yi combat bii dañ ko defan bis bi dañ ko defan seen bis ndax xele yi ma tëgg yëpp maay seen papa kenn ku ci nekk. yaa ngi préparé woon parce que combat bi li ma ci waroon lépp def naa ko mille 3017 tiré naa ko ak sédiment sandeuse ak 1000 casquettes euh, euh, comment s'appelle euh, ndukkumaan construction ak ndukkumaan transit 1517 la ñu tiré ak 1000 casquettes Osebos tiré na presque moom itam 500 et quelques 17 blouson yi nga xam ni moom la mbër yëpp war a sol 20 mbër yëpp blouson yi ñu war a sol muy diggante ndax sédiment sandeuse mooy sama sponsor principal ak Ndoukoumane construction ak Ndoukoumane transit ose bos ñoom ñëw ak euh, euh, ku mel ni comment s'appelle ku mel ni CCBM ak euh, ñoom ñëpp àndandoo jàppale ma pour ñu feet bi waroon neex donc bagage yooyu yëpp pare na fii may wax ak yéen waaye nag wax dëgg yàlla daal maa ngi ñaan mbër yi ñaan seeni menacé waxtaan naa léegi ak Birale président CNG de lutte xamal ko ni ko damay randal combat bi tuuti ba corona bi jeex euh, ñu door a dellusiwaat ci loolu loolu daal yéen taskati xabaar yi moo doon woo bi ma leen woo bu ku ci am ay laaj ma déglu leen jërëjëf Fane hmm. hmm. yokk may wàññiwoo. Hmm. ndax wax léegi c'est la première fois. promoteur bi tëgg làmb yóbbu avance yóbbaale reliquat. Mhm. bariwul lu ñu koy ci làmb ba dem as naa tey jii bi nga mhm. ak mbëri nga xam ne ay xale leen yaakaar ci làmb. Mhm. ndax déggoo am na seen diggante ak mbëri. waaw xam nga lii man nañ ne cas force majeure la mbër yi man maa jël sama avance jox leen su mbër feebaram damay xaar yàlla. su mbër deewoon damay xaar yàlla su mbër deelewoon damay xaar yàlla su ma deewoon mbër yi dañuy xaar yàlla man mi leen tëgg kon yaakaar naa ni man mi leen jox avance pendant 6 mois defar presque 5000 tiset defar ay casquettes parce que feet laa doon def invité le président euh, ci sous bi ñaari chef d'État war nañ yebal seen président fédération ak seen ministre sport ñëw muy Côte ak Burkina Faso ak Gambie ma tudde ko sama njiitum réew ngeen gis publicité bi man rek maay def publicité sans spot ci rajo yi def sans spot ci télévision yi nga xam ne ñoom laa amal exclusivité kon yaakaar naa ni lii mbëri ci seen bopp ak seeni mbokk dinañu comprendre ne maa leen gën a soxla man mi jëy jël ay millions jox leen dépassé ay millions joxe ko cent million jënd licence saa su ma xëyee di daw maa ànd ak suma staff ba jant bi so waaye dama leen a wax ne kenn ku mu dal ci yow wala mu jigee la da ngay seet ne bu dalee kenn ci sénégalais yi dal na ku ne te feebar bi tey jii ku gis président Macky sàll bi mu ñëwee ci hôpital bi sa yaram dafay daw tey am nañu fukki cas ak ñeent li génn àddina tey mat na defe naa ñu ngi wax ne quatorze personnes xawma quinze personnes donc bu fekkee caaxaan dem na dëgg des ñu bañ a naxante ku yàpp bopp ump da ngay làmb sam kaan man daal man la Xaadim Sàmb man maa jël suma initiative ak suma staff ak sumay conseiller waxtaan ak ñoom ni leen bu ëllëgee ci talaata ji dinaa woo taskati xabaar yi man reporté sama làmb ba corona bi wàññiku ma door a organisé sama làmb àggale ko ba àndeek dogal yàlla. Abdourahim Samb Fallou mhm. mhm. mhm. xam actuellement nii kañ nga fas yéenee jàpp date boobu. date boobu xam nga saison bi daanaka mi ngi doon bëgg a tëj. man maa doon tëggal a seet presque saison bi li ci deseen bareetul te saison bi su tëjee ñaari weer lay tëj tijjiwaat donc su yàlla suñu borom dogalee noo ngi ñaan yàlla sax balaa saison bee tëj corona bi jeex Sénégal ndax man saa suma xëyee ci lu fi jeexal corona lay dox ndax dama la wax ne la semaine bi yëpp ci ay dëj laa yendu te dëj yooyu ma yendu dafa mel ni sama kër la xewee ndax man dañ may wax sigil ndigaale ki yaayam gaañu démb suma rakk la muy Pape fi mu dafa def délégation ànd ak famille ñëw sama kër jaale ma ndax yaayam moo ma yar kon euh, mbir bul ne euh, dalul ku sant sàmb comme xaadim sàmb mais ñi mu dal dañ maa jige benn mooy bu ñu demee ba ne jumaa yi dañ koy tëj tëj jàkka yi ne ku ku deele bul saraxal ngénte yi lañu ko arrêté nañu arrêté dajaloo bi ku takkul masque am na lu luñ lay daan foofu wax dëgg yàlla man mënatumaa dem dama taxaw parce que jàpp naa ni su ma dajalee vingt cinq mille personnes ci arène nationale kenn jële ci feebar bi yàlla suñu borom dana ma ko dana ma ko topp ëllëg waaw waaye date bi moom bu corona bi jeexee rek saison bi ubbi bu soobee yàlla ñu jàppaat ko defaat ci liñ ci war a def dama la ne lépp lu ñuy def ci làmb def naa ko fi may wax ak yow même billet yi ci laa yendu démb defar naa ko mais bii bi ma tëddee ba guddi laa seet ne. am na loo xam ni su ko diine nungoo ngor nungu ko am na loo xam ni su ko ngor nungoo diine nungu ko. est-ce que mbër ko waaw bi nga xamante ni décidé naa ko tey ci 11h woo naa Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ni moo jaar sama digganteeg kullu mbër ne ko wool menacé yi nga xam ni man am na menacé yoo xam ni xaw ma leen Abdoulaye moom laa délégué defal ko poire ne ko yow yaay engagé combat yi wuti xaalis. presque mbër yi ñetti mbër laa ci xam ñi ci des xaw ma leen moom moo leen engagé wax naa ko ni ko. waxal menacé yi ne leen xaadim ne dafay puus date bi ba corona bi wàññi ko. ñu gis ne ah bëgg démb naa moom moo tax ñu ne làmb ji amul tey ñu gis ni yow affaire corona nga wax moom wax ne moom moo tax ngay arrière say am na ñeneen promoteur yoo xamante ni ñu ngi bëgg pour seen combat am pour def ko huit ba dem ba wàññi li nga xamante moom mooy nombre de places yow instant bi disperse bi au contraire au contraire fii may wax ak yow amul benn esponsor boo xam ne jox na ma un franc amul benn parrain bu ma jox un franc. man nag ni waroon naa fekk ma ne maay chef d'état Sénégal wala maay premier ministre waaye wala may président assemblée ndax am na ñu fi yor ndomboy tànk maa ànd ak ñoom bañ yor ko kon kenn warumaa gën a bëgg Sénégal promoteur bu ci nekk la ngay def yow yaa ko xam promoteur yooyu nga wax fa ñuy dem yëguma ko yaa ma ko wax man daal bi may tëgg làmb di joxe avance ànduma ak promoteur bi may dem tàgguwuma promoteur tàgguwuma champ tàgguwuma kenn maa amal sama bopp ndax promoteur yooyu nga wax yépp ci làmb lañ ma fekk 40 ans laa ci def ñeent fukki at laa def ci làmb nekk naa ci lu ne ci àddina mboolem roi des arènes yi fi nekk ku dul Modou maa la jëkk maa la jëkk a tëgg nga doon roi des arènes kon xam naa luy làmb maa jëkk a tëgg Tyson fay ko 150000 maa jëkk a tëgg ni fay ko cent 100000 maa jëkk a tëgg Gris Bordeaux fay ko 800 000 yóbbu ko Dagana 2000 maa jëkk a tëgg Bombardier donc kon xam naa làmb mais dama la ne kenn ku mu daloon ci ya ci yow même ñun yéen journaliste yi yàlla bu mu leen jige ku mu ci jige man su la woo doo ñëw kon nañu delloo siwaat xel yi xaalis neex na mais fi la ñu koy bàyyi xaalis bi neex na mais fi lañu koy bàyyi moo tax ma ne damay puus man sama date la 7 août bi dama koy puus ba corona bi wàññiku ma dem organiser waat ko def ca la ma ca war a def bàndeeg dogalu yàlla. jërëjëf Xaadim euh, Baye hmm. euh, dafa am loo lu ñu ci ci gis. Hmm. muy combat samedi bii weesu euh, wala dimanche bi hmm. dem ba arène nationale ñu ne problème service d'ordre la lamb doon am est-ce dal dal la ba nga toppale service laajoo ci non ñooñu xamuñu lu ñuy tëgg làmb man bind naa directeur sûreté des nations DSP bind naa ko leetar depuis dama ne kaar ñeent fukki laa def ci làmb CNC du joxe service ordre civil du joxe service sordu man bind naa leetar bi ma war a bind ci suma entête njaar ndéem production demal sama bopp ba intérieur ma joxe ko ñu jox ma ñu defal ma décharge wane ne bëgg naa téeméeri alkaati la 7 août ñu ñëw onze heures maay rey nag toggal leen añ man at bu heure bu may tëgg làmb nag laay rey pour bëgg service ordre bi teel a ñëw journaliste yi jëkk a ñëw ci làmb ci xam nañu loolu du boobu affaire service ordre promoteur du ko wut CNC du joxe service ordre ordre da ngay bind directeur de la sécurité moom la ñuy wax DSP maa ko bind joxuma ko doom joxuma ko secrétaire maa ko bind jóbbu leetar bi ñu defal ma décharge bu ñu ko bu ñu ma defalee décharge bu fekkente ni bii lii xewut dañu koy balancer interi centrale ma dem central fay li may fay ñu defal ma décharge ma dem toog jàpp suma njàmbur mais CNC du joxe du joxe du joxe du joxe du joxe du joxe sécurité kooku musul am ci àddina jërëjëf salaamaaleykum Père Khady. Mhm. maa bu baax a baax di sa yéeguwaay di la ñaanal jàmm gudd fan ak wér. amiin amiin la. kon su ma demee nekk ci ay télévision grâce euh, à cause de toi. jërëjëf dama la ci ñaanal yal na yàlla yàlla nag ma ci ëpp succès ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam te mu ànd ak wér yéen ñëpp. mais ñaari laaj lay ñëw ak yow Père Khady. Mhm. dañu gis ne euh, promoteur moo xam promoteur la moo xam ménagère la moo xam mbër la Euh, lu ci nekk dafa bari ay kuréel ci seen biir jubóowuñ ci seen biir promoteurs yi ñi dañoo aw fële ñii aw fii ménager yi ñii aw fële ñii aw fii leader en activité en activité ñii aw fii ñii aw fële ñii aw fii jubóowuñu ci seen biir maanaam est-ce que tas boobu nga xamante ne tas làmb tas na ko est-ce que nekkul noonu day day day indi ay jafe-jafe ci biir làmb indi jafe-jafe ci lu mel nii parce que lu mel nii euh, tere waru woon a tere per Xaadim làmb di am waru a tere euh, ñuy reporter làmb parce que war ñu ko préparer bu yàgg comprendre nga bu baax a baax loolu laa amoon euh, lu ma la ji laaj ci ci biir kuréelu làmb yi nga ñëwal ma ci beneen bi Père Khadim Samb yàgg na ci làmb euh, doon na reporter arbitre na tëgg na làmb bëri na comprendre nga formé na ay ay reporter Père Khadim Samb dem na ba euh, galaaj bu ko mbër yëkkatee mu xam ban kii ko ëwee comprendre nga béy bu ñu rey tey béy bu ñu rey alxames béy bu ñu rey àllarba yooyu yëpp Père Khadim Samb la ko ji ak li nga xam ci làmb lépp Père Khadim Samb est-ce que Père Khadim Samb pare na pour bind téere ci làmb suñu classe yi nga xamante ne xamaguñu ci làmb lu bari am loo xam ne dina nañu ko ciy jàng wala. jërëjëf euh, Mamadou maa ngi lay gërëm bu baax di la sant euh, wax nga dëgg maa la formé euh, maa ngi ñaan yéen ñi fi nekk tey wax ci làmb bayre bu ma ci am ak succès bu ma ci am na yàlla jox bu ko ëpp xale bu baax nga ndax léegi jafe na. nga former nit ci dara jàngal ko ba man ko bañ ko di ko wax bu njëkk bi mooy man duma promoteur benn moi je communicateur traditionnel historien un bureaucrate di directeur de société am entreprise muy fonctionner man damay def at mu nekk ki nga xam ne mooy président de la République du Sénégal di Alaaji Macky sàll suma xarit la di suma wóllëre xam ma ma xam ko mu yëg ma soxnaam yëg ma may def at mu ne mag def benn semaine culturelle man événement laay def événement zel laay def man benn at benn làmb laay tëgg ci at mi kon man bokkuma ci kuréelu promoteurs yi promoteurs yi bu ñuy woote du ñu ma woo bu ñuy def du ñu ma ko yëgal parce que xam nañ ne bokkuma ci malgré non damaa dem jënd licence ñu xam nga promoteur dama dem jënd licence comme ñoom ni koy jëndee parce que jéem ñi taxa ni wan ñoo daanu ci teen bi gën ñi nekk ci pind bi lu nit di def ci làmb rek maa la ko gën a yeyoo ak ku mën a doon ci ñoom mais ñàkk ànd bi baaxul fenn parce que promoteurs yi jaaxle sax a tax tey ñu ànd ñoom ñëpp dem fañ dem parce que fii lañ ma waxee benn promoteur bu mag moo ma woo ni ma bala bul def point de presse ma ne ko déet mu ne ma demoon nañu ci gouverneur démb tey lañ jox rendez-vous 4 ma ne ko yëgu ko woon yëgu moon ne deman ngeen fa mboolem kuréel ga fa dem kenn ma ca mag te kooko maa ko dugal ci làmb maa tax mu xam ko maa ko formé créé ko kon su ma ci bokkoon ñu boole ma ci kon du ma promoteur mais ñàkk ànd bi moo indi new doole parce que bu ñu àndan booloo bu lii xewee ñoom ñëpp dañuy toog réunion nañ arrêté làmb noppal seen seen noppal seen bopp noppal ministre sport dama la bugg a wax ne la doom li xew yàlla na ump ñëpp yàlla na ko fi suñu borom jële bu ñu demee ba ab dëkk bu ñu xëyee ñu ne ñaari junni nit a ngi nekk comment ñu ngi feebar mais quand ci man réew lañ nekk ay nunu lan lanu ay doom aadama lañu wala lu nu doon bu ñu demee ba bu ñu xëyee kenn ku ne yaa ngi ubbi rajo du déglu ku dee mbaa nga déglu ku feebar wala nga déglu ku nekk comment ñu ñu nga bëgg a dajale ay nit eh, di di yokk loola man duma ci bokk xam nga dégg ngeen ñu naa diw moo moo dajale woon nit ñi béréb sàngam diw moo wotoon sàngam histoire de bind man man naa dee suba làmb ji sax mën naa am du ma ko fekke yàlla moo xam mais li am solo mooy man làmb ji ma doon tëgg juróom-ñaari fan ci weeru août ci arène nationale te lu mu bon bon bon vingt cinq mille personnes fekk si ma fa dama koy puus randal bu corona bi wàññi koo ba nit ñi dellu ci seen sago ma door ko organiser waat bandeek dogalu yàlla bi ñu des mooy téere bi maa ngi bind livre euh, soo xoolee Euh, du fi xej euh, document yu bare ngi fii euh, damay def su ma defee benn chapitre noté ko def ko ci benn enveloppe parce que ñaari livre laay bind damay bind benn bi ci suma jaar-jaar man ginnaaw bu sunu borom jàlleem yàlla ma bind ak sama ndey maa créé bopp parce que fii ngeen jàkkaar loolu muy margeti margeti leen à 1970 nef naa fi dem Porté yenu leget gu ñu dugg ba mu fees nga dem Gueule Tapée ñu jox la ñetti dërëm mbaa nga yenoo ko fii dem fas ñu jox la ñaari dërëm donc man ci sama bopp laay jëkk bind ak suma yaay ak sama baay dinaa bind ci làmb ndax làmb sama parcours ci làmb vingt cinq à notre jour amul ku ci yàlla dimbale ba nga jaar ci boobu parcours du communicateur du arbitre du ku nekk CNC du mbërëm làmb du kenn loolu la ma sunu borom defal parce que yi ma la fi yi sama parcours ci làmb amul kenn ku ko am donc dinaa bind livre pour euh, ëllëg ñi ma fi bàyyi ñu livre bi maa ko maa doon bindoon bàyyi fi parce que jot na ñu jël làmb bind ko ndax làmb du ay caaxaan. làmb buur moo ko daa organiser mbër mi mbër yi bëri ay buur lañu doon doon arbitre bi koy arbitrer buur lay doon géwél bi woy buur lay doon microcentral bi buur lay doon ñi koy seetaan ay buur la ñuy doon làmb ñëpp daawuñu ko seetaan am billet wala nga am xaalis taxutoon nga daa seetaan làmb parce soo xoolee. làmb ji nga xam ne Elie Manel moo ko mujj organisé diggante booy séréer la bu njaareem ak may mbay mbay ja jubla lion de jandeer keroog la ko booy séréer daan jël drapo arène sénégalaise boobu sax drapo fédéral la tudd mais boobu arène sénégalaise amagul drapeau fédéral la tuddoon parce que boobu Elie mooy chef de canton de la woyof drapeau fédéral moom la booy séréer gagné ci mbay ji jubla lion de jandeer te boobu mi ngi mel ni tey ñu ne làmb ji président de la République moo ko organise ba pare toog di ko seetaan ba pare nag am mbër kon làmb du ay caaxaan. Euh, mhm. woote bi nga woote. Mhm. ak li may jël ne da ngay reporté bés bi. Mhm. kon làmb. wàllu livre bi nga bind man moom yaakaar naa sawar naa pour ànd ak yow. jàppale ci bind incha waaw xam nga million yu bari laa ci def waaye du du ma yëgatuma perte bi feebar duggee ci réew mi ay nit di génn àddina yëgatuma perte ndax lu mu bon bon bon bon bu ma ko organisé woon. te waxal yàlla dinaa ci am ñaar fukki million lu mu bon bon bon bon wala fukki million ak juróom li tax ma ne leen man duma promoteur man organisateur laa man man man technicien laa su yàlla dimbale woon dara bañ a xew feebar bii amul bala 7 août arène nationale dama koy feesal seetaan ngeen daaw suma làmb man maa jëkk a raase arène nationale daaw ci combat yi ma tëggoon te ren combat yi ma tëgg kenn ku nekk xam na ne kéwél ak ñaq jariñu fa la làmb yem kenn ku ne xam na ne sandereb ak capitaine dina fa la kenn ku ne xam na ne alburi ak ki nga xam ni kii mooy sandengaleer fa la làmb yem pour wax la ne la président Macky Sall laa tudde làmb ji dana yeble dina ma joxi teraanga Tahirou Sarr sama jarbaat sama xarit am ci drapeau Omar Sy tey ci suba yëgagul loolu tey ci suba la ma recevoir parce que mooy yor Osebos te moom moo may sponsorisé même émission bi may def na woon sax mooy sponsor bi moom ak Abdou Aziz Ndiaye yaa ngi dégg blouson yi blouson yi huile Sador defar nañ cinquante blouson lu mu néew néew huile Sador defar na lu mu néew néew mille tiset pour wax la ne la euh, boo xoolee décor bi may def ci làmb kenn du ko def seetaan ngeen bërki démb parce que loolu laa jàng ñaar fukki mbër yi kenn ku ne day sol blouson bu rafet bu seer bu may def point de presse noonu laay def su ma def open presse mais nekk cib koñ ñii di dëj ñii di li kii ñu ne ko sa mbokk wala sa yaay wala sa baay wala sa doom wala sa jabar mi ngi réanimation ñu naa vingt cas grave ngay sabaru départ ci koñ bi taal seen oto di wër man daal sama yaram nungu ko ak suma suma ngor mayu ma ko waaw suma yaram nunguwu ko suma ngor ma nunguwu ko loolu moo tax vraiment ma reporté làmb ji ñaan yàlla suñu boroom mu jeex ak jàmm ma organisé waat làmb ji euh, di wax ni mbër yi dinañu comprendre li tax ma def ko ndax ñoom xam nañ ma xam nañ ne bi may dem di yóbbu avance damay indi indaale reliquat mais CNG damay ñëw ñu ne ma non non xaadim reliquat bi delloo ko denc. léegi luy sa secret tëgg xam nga benn nit bu benn nit bu feebar ñàkk milliard ma ko gënal. billahi wallahi tallahi bu ñu mënoon benn nit bii képp la corona jàpp ñu ni ma lépp loo am ci àddina. na ko ñàkk te kooku wér nga dem di yalwaan ci mbedd yi ñu di la sarax ngay añaka reer barke xaadimu rasul ma def ko maanaam li ma am lépp samay kër sama alal ak samay tool ak fas ak xar ak nag lépp ñu ni ma lii da koy joxe tey nga ñàkk ko dans une te kii corona bi jàpp mu wér ma ne leen lu ma mos a am ci àddina même suñ ma noon defal taati neen jaar ci mbedd ndakaaru dox ba sànd ga te corona bi génn ma sumiku léegi def ko parce que benn nit bu wéradi nga yàlla sunu borom dimbali la ba wéradi ga ya nga jaar ca dox ca benn jéego képp yàlla sunu borom wéral ko li ci yàlla fet ci nit yaaba mais yéen xanaa yéen demu leen hôpital Fann demu leen principal demu leen dalal jàmm demu leen Dantec man damay taal sama oto damay wër prison yi di xool damay dem ci armeel yi xool damay dem ci biir hôpital yi di wër di xool xool lii xew daa lañ defal benn anecdote su ma bët bi dama am décollement de rétine fay naa 3 millions con laser ñu opéré ma ñaari yoon ma dugg bloc bi ma génnee toog 3 mois amatuma 10 pour cent pour gis ci ma dem France su ma ay jarbaat waa kër aji Kumba Diouf ma leen ñaanal suma doom yu baax yooyu ñu yóbbu laas bi ma ñëwee kiñ ma jëlal rendez tubaab bi. xool suma bët yëpp laaj ma ni ma indil kayit yi ma génne kayit yi nga yi ma opéré mu ni ma trois mois dañ la ci dugal bolog ñaari yoon loolu moo yàq sa bët mais dañu bëggoon ki nga xam ni moo la opéré boo d'accord ñu defar benn rapport nga porté ko ndax bët mooy doom aadama te bu la dugalee bolog ci benn weer war na toog un an pour nga duggaat bolog moom deux mois trois mois ñetti weer nga dugg ci bloc deux fois parce que kayit yaa ngi nii su ma jarbaat bi wax ma li mu wax interprète bi Ibou Ibou Doumbouya ma ne ko nee ko kooku ma opéré ba suma bët bi am problème amatuma ci cinquante pour cent pour gis nee ko jéggal naa ko ci faaxan yàlla na ko yàlla fay yàlla topp topp ma ko dara mu ne ko lu tax mu wax lii xanaa dafa feebar ma ne ko déet ma ne ko nee ko bés bu yàlla sàkk marom bu junniy nit yoo xam ni bant lañ yor di ko doxe te gënuma leen kon su fekkee yàlla dimbale na ma ba ma desee benn bët nga ni ma dinaa ko defar ba nga man di dawal sa oto di xool comme ñaari bët mu naa ah, ma ne ko damay sant yàlla pour wax la ne la li xew dama bëggoon nii ngeen jëlee caméra yi ngeen dem ci hôpital yi xool li xew fii may wax ak yéen hôpital yi fees na clinique yi fees na wax dëgg yàlla li ma jàpp mooy xaalis lu mu neex neex neex neex neex neex danaa la waatal ci alxuraanal karim sama xarit yi ma ñàkk fan yi seen ndey ñàkk seen ndey ak sama jarbaat yii génn àddina bërki dem bu ñu ma noonu li nga yor lépp ñàkk ko te Fambaye Fall bañ a dem ma ne sama alal jëpp nañ ko ñàkk te Fambaye Fall bañ a dem suñu mënoon sa alal jëpp na ko ñàkk doomi leen a taal ji génn àddina bërki dem di suma jarbaat du dem ma ne leen naa ñàkk suma alal beneen ku mu mën a doon nit jullit mbindaafoon mu mën a doon rek te corona bi dal la ñu ne ma corona bi kat soo ñàkkee li nga am lépp corona jeex soo génnan summi sa yére dox ba Sandaga dox ba marché asalem dox ba assemblée ñu woote arène nationale nga dox summi ku def peppam neen te corona jóge fi ma def ko xanaa ku corona jaral loolu du ma jaral xaalis man ñaar téeméer yi suma capital parce may ñëw Ndakaaru 69 ñaar téeméer laa fi wàcce kon su ma demee ba jëli million joxe ko avance su feebar dikkee ci réew mi te dajaloo di ko yokk damay fexe ba dajaloo boobu duma ci bokk man. ana Fall. <laughs> Hmm? waaw kon nag euh, jërë ngeen jëf bokk yi nu doon seetaan maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant Serigne Touba Khadimu Rasool di nuyu président Macky sàll di ko massawu di ko wax ni tey xolam tooy na bi mu demee ci hôpital bi ndax man xam naa ko ku ko jigéen laa nit ku rafet xol la nit ku gaaw a jooy chef d'état nag du jooy du daw waaye ku ko xool tey bi mu duggee ci hôpital tiim nit ñi ñu takkal leen ay masque ñuy noyyi te ku dugg foofa quatre-vingt-dix-huit pour cent sa waa kër dañu jàpp ne dootoo génnaat ba toog dogal yàlla kon maa ngi koy massawu di ko ñaanal yàlla sunu boroom yéene ji mu am ci lii jóge fi yàlla na ko yàlla suñu boroom jàppale di mm, nuyu Abdoulaye Diouf saar sama xarit sama rak di ko ñaanal yàlla moom ak équipe bi mu àndal di leen encouragé yàlla na yàlla suñu borom taxawu leen ba coono bi ñuy daj tey ndax dem nañu tey ba am na ay ay médecin ak i fajkat yoo xam ni corona bi jàpp na leen am na sax ay taskati xabaar yu corona bi jàpp donc yàlla na yàlla suñu borom wéral leen kon Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy massawu di massawu ministre sport Matar Ba di ko ñaanal moom itam yàlla suñu borom wéral ko yàlla fëgg boppam ci barke yonent bi di euh, euh, féliciter aussi niveau ministre niveau président CNG muy euh, Bira Sène am na courage ndax ñaari fan yi man musuma dugg bureau benn yoon laa fa dugg damay yóbbu reliquat ñëw nuyoon teeg moom gën dem suma yoon xaw ma fu mu dëkk ci àddina xam naa ko parce que depuis vingt et mu nekk CRC euh, bu Kaolack may dem Kaolack di fa organiser ay làmb di fa reporter ji xam naa ko mais maa ngi koy encourager di ko wax ni ku bóot bukki xaj baaw la di ñaan yàlla sunu boroom mbas mi yàlla ko fi yàlla jële di ñaanal yàlla sunu boroom mbër yi nga xam ni tëggoon naa leen maa ngi leen di jéggulu di leen massawu di massawu seeni soxna ak seeni yaay ndax xam naa ni am na ci ñoo xam ni préparation am na ci euh, lutteurs yoo xam ni yii seeni tiset pare na seeni am seeni fans club defar nañu ay tiset am na ci suma benn doom ci mbër yi benn kilifa bu mag tiireel ne ko ay tisetam daf ma ni jëlal dix bloc te kooku bëriwul grand combat de bëriwul grand combat bëriwul combat bi ci topp benn kilifa daf ma ne indil dix bloc teg ko fii ci bureau bi ñu jaayal ko ko jox la sa xaalis ndax damaa bëgg su dugg see muy nekk dernier bëree combat spécial wala dernier bëree euh, avant grand combat donc kon sponsor yi ma am aussi maa ngi leen di massawu muy Sedima Ndoukoumane Ibil Sador mooy suma sponsor tout le temps émission yi may def yëpp nga xam ne Abdou Aziz même émission bi sax bu ci yoonam nekkul dafay sponsorisé muy Ibil Sador ak euh, CCBM Samsung ak Ocebos ak euh, Fay Fallou ak kan euh, sponsor yi sédiment ndukkumaan transit. déet du ma dama bëgg a xam parce que sponsor yi. Euh, may leen ma doom. Karo. Karo. ah. foofu la yor na programme bi ah, ah Fofana am na ko euh, kon sponsor yi nga xam ni di massawu di gërëm sponsor yi nga xam ni ñoo ma jàppale ba ma amoon fit tëgg espectacle bu mel nii Sedima di su ma esponsor ak ndukkumaan transit ak ndukkumaan construction ak huile Sador mi nga xam ni toujours Abdou Assis daf may wax ne ma même boo toogoon ci dibiteri bi ma sponsorisé la ak La post ak euh, CCBM mi nga xam ni moo ëmb Samsung ak espace auto ak ki nga xam ni kii mooy Fay Fàllu ñoom ñëpp àndoon ak man fas ma yéenee gunge te gis nga ñi ma lay wax ñëpp ñëpp defar nañ tiset ba pare ñëpp sédiment presque 3000 tiset 1000 casquettes ndukumaan 1000 tiset 1000 casquettes euh, euh, comment ça s'appelle huile Sador mille tiset mille casquettes moom itam ak defar ay blouson maanaam stade bi la set ni mu nar a mel xool ku mel ni CCPM Serigne Mboup xam nga suma xarit la baaralee bu bees mu delloo si ko presque tiré woon na lu mat mille moom itam parce que dañ ma ne dañ bëgg stade bi su ñëwee ñu xam ne yow tëgguloo làmbi kese da ngay def spectacle parce que man nitu culture laa xam nga làmb ji trois minutes la deux minutes culture bi mooy commencé trois heures ba 20 loolu moo tax toujours damay bëgg décor bi rafet di gërëm aussi waa Kër Pape Seck bi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji comme batteur te waroon na ñëw di gërëm Ndey Faatu Njaay bi nga xam ni moom suma rakk la ngeen gis woyim ànd bërki démb ak Mati am Dogo ak Ousmane Diouf sa euh, Moussa Diouf sama doom euh, di nuyu Adja Ndikku Cuun sama rakk ak euh, ki nga xam ni mooy Ibou Ndiaye ñoxo ko bàyyi ak euh, ki nga xam ni mooy euh, Ipongaar yi ñooñu ñooñu kenn ku ci nekk euh, la ma la doon jox ñooñu duma tàggook ñoom mais pour wax wane rek ne yëf yi lu diis la ñooñu ma lim ñu mujj ñooñu di sumay bokki bopp ma bokk askan ku ci nekk dinaa la woo maa yow ñu gise bu soobee yàlla en tout cas maa ngi balu ñëpp àq di baal ñëpp ak di gërëm aussi ministre de l'intérieur ci taxawaayam moom itam ndax lii lu diis la ak police ak gendarmerie ak euh, service d'hygiène di gërëm ñëpp di wax ni fu waay nekk te gis ma mbaa nga dégg sama kàddu maa ngi ñaan nga ñaan ñaan gii may bëgg a ñaan ne su fekkente ni man Xaadim Sàmb yàlla maa def maa la tooñ maa moy maa fen maa yàq ba tax nga teg Sénégal lii maa ngi ñaan nga teggi ko ci Sénégal yëpp teg ma ko su fekkee maa def loolu ñaan yàlla sunu borom mu jóge fi benn nit bu mu am corona ci Sénégal benn nit bu mu am corona ci àddina na ñëpp tuubaat tewaat jàmm ku mën a jàng alxuraan jàng ko ku ko mun tée sa kurus di tuubal yàlla sunu borom ba lii jóge fi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ñëpp ak di leen di leen nuyu nag yéen taskati xabaar yi ndax bi ma leen woo ak bi ngeen dikkee lépp mutul deux heures de temps kon maa ngi leen di ñaanal fu ñu ma dégg ci média yàlla nañ dégg yàlla nañ leen dégg fu ko raw yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla may leen wér ndax bu dul yéen dara du sotti dinaa gis léeg-léeg gars yi attaqué leen waaye nag métier mi ngeen yor sama papa Serigne ab Aziz Al Amin dama ko seet si mu ne ma xaadim ma ne ko si demb mu ne ma ndax xam nga ni métier malaaka nga yor ma ne ko ah mu ma métier malaaka nga yor ni ma koy jottali xabaar ndax ne na ma Jibril moo daa jëlee xibaar yi ci yàlla sunu borom di ko indi rasulullahi kon ne na ma métier la moo xam ni. soo ko defee ni la ko yàlla sante boo dee dem directement àjjana kon maa ngi leen di ñaanal yàlla bu leen ci juum yàlla na leen ayu micro ump yàlla na leen ayu pilim ump pilim ak micro yàlla na leen aw ayam ump ci barke yonent bi caméraman yi yàlla na leen yàlla musal faal daf maa waxal ni ma bés dañ koy seddoo te bi seddoo ngeen kook man moo tax day dafa woyof ci man jërë ngeen jëf